أحببت رب العالمين mahal amiin wal amiin. asalaamualeykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi am na ñu digal ci seex Muntaxa xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg téwér ñëw ci sëriñ Mor Fati Mbàkke xalifab maam Cheikh Anta ñëw ci sëriñ Xaadim Mbàkke xalifab alaaji daam ñëw ci mbooleem njabootu borom gaawaan gépp ci teewaayu sëriñ Cheikh Anta Mbàkke moom sëriñ Moodu Roqaya lan moo xew setu borom gaawaan bi liggéeyaakoonu sëriñ tubaab bi ki nga xam ni moo ñëw sali porte daal fekk fa ay ndaw teg leen ci yoonu siraatal mustaqim tabax fa jumaa fa daaree alxuraan deux fois hôpital kooku mooy Serigne Khadim Mbacke Astako alaaji daam maam Cheikh Anta bis ba mu daan amal ca Sali Portudal di màggaluk Sali Portudal sant Cheikhul Khadim moo ñëwaat la 4 mai Serigne Khadim a ngi ci woo ñëpp ren nag mu duppee ko cheikh bu Kunta caatu cheikh bu Mouhamed Kunta waaye nag di ci rend hommage ay kilifa diine ci njiital cheikh Sidil Muxtaar borom juróom-ñaari soroor yi ak kan alhaji Sidi Lamine Niass ak kan Serigne Abdou Aziz si Al Amin Serigne Khadim ak kan Baye Ibrahima Diop nekkoon magum taalibe Serigne Khadim nag ku ne xam na ni mi ngi ciy woo mbooleem Petite Côte bépp rawatina mbooleem ñi nga xam ni ñoom la seqal lislaam bi. njabootuk sëriñ Touba gi mu ngi leen di woo waaye ñi mbokkal borom daaru salaam njabootuk sëriñ Modou Mamoun si njiital sëriñ Jili Mbàkke ba ci njabootuk sëriñ Abdou Góora njabootuk borom gaawaan gu jigéen gépp mi ngi leen di woo njabootuk maam maaram gépp sëriñ Xaadim ngi leen di woo ci bis bi waaye xam nga ni mi ngi ci woo son excellence président de la république Macky Sall ak kan monsieur Omar di kenn ci moom ministre Omar di xaritam di kenn ci sëriñ Xaadim waaye di kenn ci Petite Côte bi ak kan Ousmane Gueye maire bu Saly di kenn ci bis bi waaye ren muy borom bis bi ndax Cheikh Bou Kounta sëriñam lañ ko tuddee. Pape Diouf meeru Ngexoox Thierno Diagne meeru Sindia Bokar Saaj meeru Somone Modou Mbeng meeru Ngapparu Maguette Sène directeur DMTA mooy meeru Malicounda Serigne Khadim mi ngi koy woo ci bis bi monsieur le ministre Serigne Gueye di meeru Sandiara Boubacar Sabali directeur hôtel Maguette Ba DG ANA mi ngi ciy woo nag njabootu Serigne Afe gépp ndax ku ne xam na ni soxna xarim Serigne Afe moo jur wooy juróomu góor Serigne Saliou Mbacke mi toog ci njabootu Serigne Afe mi ngi koy woo waaye bàyyi boppam bi Serigne Moustapha Abdoul Akram fàttewu ko waaye fàttewul mbooleem ñi nga xam ne ñooy ay wëllëreem ay xaritam yi nga xam ne ku leen gis-gis leen mu njabootu Serigne Touba gi nga xam ne ñoom la baaxoo àndal fu mu jëm ñoom la baaxoo nekkal waxtu wu nekk Serigne Khadim ma ngi leen di woo ci bis bi waaye mbooleem daayira yi nekk Petite Côte bi yëpp bis bi xam ngeen ni seen bis la waaye mbooleem imaam yi mbooleem kilifa diine yi murit tijaan xaadir laayeen sëriñ xaadim ku ne xam na ni këram mooy waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu bis baa ngi noonu vingt-septième édition sant cheikhul xadim ca sali porte daal le 4 mai bisub sëriñ xaadim mbàkke astako programme ba nag suñu xëyee xam ngeen nam daan def mooy séddale ay ceeb yu bari ay toni ceeb def consultation gratuite suñu demee ba